asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ca di ko sàkk ci yéen di leen ñaanal tawféex ak sutura ndimbal barke Serigne Saliou di soññe rek li waral jotaay bii muy ndigal lu jóge ci Serigne Cheikh moom Serigne Saliou jëm si ci mboolem dongay tërbiye yi waaye manees na ko yaatal ba ci mboolem jullit ñi ñëpp rek. li waral jotaay bii ak sabab bi mooy woote liggéey boobu nga xam ne moom la Serigne Cheikh joxe muy xel koom euh, di liggéeyu bàddali ak bàcc ak jëri ak ya ajo xam naa dañuy jox sunu jëwrin yi rek bu ci noppee jox sunu jëwrin Serigne Sini Taal mu ubbi kàddu gi buñ ca noppee ñu jox Serigne Moudou Guèye buñ ca noppee ñu jox sëriñ xaari Mbay euh, ak sëriñ Soulay Euh, ñooñu leen bëgg a jox kàddu ñu soññee mboolem mbokki taalibe yi. bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara te di leen baalu àq te di leen baal àq xanaa di jottali ndigal lu bàyyi ci sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou jëm ci mboolem dongay tarbi yi ak mboolem soppe yi ak mboolem jullit yépp rawatina. diwaan bi ñu nekk muy diwaanu Kaolack euh, woote bi nag ñu ngi ciy jiital ki nga xam ni moo fi teewal Cheikhul Khadim di représentant xalifa général di Mouride Alhaji seeni Seck ñu ngi koy jiital ci woote bi di woo euh, boroom dëkk bi nga xam ni moom la yàlla jiital ci dëkk bi muy soxna Mariama Sarr di woo sëriñ Isaaxa Mbacke moom Cheikh Cheikh Moussa Mbacke moom sëñ Basirou. ak mbooleem mbooloo mu topp ci ginnaawam di woo transporteur yëpp di woo Alhaji Bara sekk ak sëriñ Bassirou Fall commerçant ak mbooleem kilifa yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi Baye Serigne Diop euh, ak mboolem gox yi nga xam ne nii fasantikoo na ci biir dëkk bi ak dë dëkk yi ko wër lu mel ni waa Koutal waa Fass Kawoon ñoom ñëpp ñu ngi leen di dugal ci biir woote bi di leen woo ci liggéey sëriñ Tuubaa bii di mbàccum xel xelkom ak bàddili ba roñ gerte ga ak roñ gooñ ma mboolem daayira bu nekk ci Kaolack rek ñu ngi lay soññ di la ci woo di jiital ci eh, woote bi daayiratu Nahju waa kër sëriñ Isaaxa Mbàkke ñu lañ leen ci woo di ci woo bu Hisbullahi di woo daayira bu Tarxiya bu kawlax ñu lañ ci woo ñu woo waa daayira eh, Daaru Xuddoos Nooru Daarayni waa kër Serigne Malick Diaw ñu ngi leen ci woo ñoo ngi woo daayira sopp Serigne Saalihu fédération Soxna Jaara bu nekk Mirina Mbaba ñu ngi leen ci woo fondation waa kër Serigne Saalihu Kaolack ñu ngi leen di woo ci liggéey bi fédération waa kër Serigne Saalihu Kaolack ñu ngi leen woo ci liggéey bi waa ànd jëfal Serigne Saalihu ñu ngi leen di woo ci liggéey bi yaa ndey mbub ñu ngi koy woo ci liggéey bi soxna yaande fay ñi ñu ngi koy woo ci liggéey bi di woo mbooleem daayira bu nekk ci biir Kaolack ak li ko wër lépp ñu ngi leen di woo ci liggéey bi euh, di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm ci barkeb sëriñ Saliou. di woo ñi nga xamante ni tamit ñoo féete ci wàllum waañ ñu ngi woo soxna yi nga xamante ni ñoom lañ daan àndal ci liggéey bi euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk si wàllum waañ ñu ngi woo ñi nga xamante ni tamit ñooy góor yàlla yi te ñu daan ànd ak ñoom ci liggéey bi ñu nekk ci wàllum waañ ñu ngi woo yaa ndey mbub nga xamante ni moom la daan àndal tamit ci liggéey bi euh, te mu nekk ci wàllum wàññi di ci sàkku nag ci mbokk taali bi nga xamante ni ñu ngi dégg suñu kàddu ak fu waay mën a nekk di di sàkku lépp lu waay man ci mu jëm mu mën a jëm ci waañ ñu ngi ñu ngi koy sàkku ci mbokk taali yi li ci tàmbalee ci ceeb ba ci diw ba ci li ci li ci gën a ndaw lépp rek loo xamante ni danañ ko jëfandikoo ci ci wàllum waañ ñu ngi koy ci mbokk mbokk taalib yi nga xamante ni ñoom ñoom lañ bokkal dëkk bi kon loolu mooy woote bi ñu ngi soññi waa waañ soññi góor yàlla yi soññi soxna yi ñu gën a góorgóorlu gën a pëseefu waaw ñu ngi woo ñëpp daal bàyyiwuñ kenn. ñu yëkkatiwaat sunu kàddu rek di ci soññee ci liggéey bi ak jumtukaay yi nga xam ne mooy moom la soxla ci liggéey ba balaa loolu ñu ngi woo Alaaji a Seck di woo Sëriñ Cheikh Mbay ak Serigne Ibrahima Seck transporteur euh, ginnaaw bu loolu jàllee liggéey bi nag ku ne xam na ni jumtukaay yan cay soxla jumtukaay yooya nag mooy li demee ci radu fourchette parla saako layukaay yi ak bépp jumtukaay boo xam ne bu ñu demee dinañ ko soxla ca tool ya ñoo ciy soññi sunu bopp di ci soññ mbokki taalibe yi ñëpp ñëpp ñu ngi leen ciy soññ euh, ginnaaw bu loolu jàlleet ni euh, ñoo ngi déparé le 26 pencum sëriñ Basiiru 9h insha allah rabbi képp koo xam ne bëgg naa teew ca liggéey ba 9h bu la fekkee foofa wala foo mën a nekk wala nga am loo ca bëgg a xéewloo wala yoo bëgg a joxe luñ la yóbbul ca liggéey sëriñ bi te xam ni ñaq jariñu lu waaye def rek boppam la koy defal képp ku bëgg a dem daal bu wootee ci numéro yii numéro ndonga lu ñuy wax Muudu Géey 77

92 numéro yooyu képp koo xam ne bëgg ngaa am lépp dara lu la leer ci liggéey bi wala départ ba ak jumtukaay yani soxla boo ci wootee ñoo jëwrin yooyu dinañ la tegtal ba nga mën a dugal saw ñaq ci liggéey sëriñ bi ñoo ngi woo ñëpp comme ni ko sëñ Mbay Jaxate daa waxe woote wuute na lool ak wuute nag du fi jóg kuy wuy ji nay seetlu kay wooteeg la muy woote Cheikh Bamba lum sosutoon ginnaaw ba waaju ko sos booy woote it doono a gis ñun foofa leen féete kon nan féeteeg sëriñ bi tey nangu ndigal tey te di ko jëfe di ci soññ sunu bopp di ci soññ mbokki taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.